waaw bitim réew. yéen mbokki auditeurs la rajo Afia FM Dakar monsieur Abdoul Ahad Lo coordonnateur programme Fayez et manager général du Proximville maanaam ki nga xam ni moo jiite programme bi jàppale ndaw yi nekk bitim réew ngir ñu mën a am am xëy waaye di leen gunge ngir ñu mën a am dëkkuwaay fii ci Sénégal moo nar émission bi di fàttali yi ci samedi ji lay doon yemoog la 11 ci weeru juillet ci li ko dalee ñetti waxtu bu fekkee fanweeri minute jàpp juróom mu nar si jàkkaarloo soxna Aminata Diop ñu nar a waxtaanee dellu si wàllum immigré bi ginnaaw ba mu dëddoo am réewam naka la mën a wàjjalee boobu la dellu si ba mu ñëwee mën a dund te ànd ak benn jafe-jafe fii lay amee sur 93 point 0 kon naka yéen mbokku auditeurs yi. yéen it mun ngeen indi seen i xalaat ni ngeen ko doon defee rek di jaare ko ci bu mu jokkoo bi di 88 628 05 05 88 628 05 05 jomay tukki waaye fulla fayda moo lay gunge ngeen ko mën a ñibbi ci sam aousubillah wa sallama asalaamaaleykum yéen mbokki auditeurs ak auditrices yi nga xamante ni yéen safoo rajo bi di Afia FM bi di leen sant di leen gërëm ci collectif gi ak fidélité bi waaye gërëm suñu borom bi nga xamante ni moo ñu may kartan ba ñu mën a dellusiwaat tey fii eh, ci samedi ji yemoog le ci weeru juillet ni nga xamante ni noonu lañ ko doon baaxoo di def rek euh, ci waxtu bi heure bu jotee muy toog fii rek euh, am lu luñ fi indi waxtaanee ko ak yéen waaye ñu nuyu bépp kilifa diine nuyu kilifa aada ñëpp nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi nekk si euh, Sénégal nuyu aussi tamit ñi nga xamante ni ñu ngi nekk si diaspora bi nuyu kilifa kër gi soxna Penda Ngane Sougou ak mboolem personnelu Afia FM Dakar tey nag li nga xamante ni moom lañ nar a waxtaanee muy wàllum immigration précisément retouru Modou Modou ginnaaw bi nga xamante ni ah, dëddu na réewam naka la mën a waajali boobu la ñibbisi naka la mën a waajali ba investir ci réewam naka la mën a def ah, ba am dëkkuwaayam ci kaw loolu tak moo tax ñu daal di nar a jàkkaarloog ah, ku nga xamante ni macha allah kenn dëdd ko présenté ci sénégalais yi di monsieur Abdoul Ahad Lo nekk euh, coordonnateur du programme FAEJ et manager général euh, du euh, Proxim Ville c'est comme ça euh, monsieur Lo ñu ngi am mbégte ak contentement euh, di rafetlu sa teewaay fii ci rajo Afia FM Dakar immeuble Indagraf sa yaa euh, studio Jules Bor ñi ngi lay dalal di la tatagal di la bàyyi nga nuyu ak askan bi asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Sénégal ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu bu baax soxna Aminata ci invitation bi na xam ne invité ngeen ñu ko di ñaan suñu boroom uh, uh, yokk xéewal suñu uh, ak timit kàttan ak timit sàmm suñu mag ñi na xam ne wax dëgg yàlla Sénégal fu mu agsi rek tey jii ñoo fa nekk mm-hmm. di timit ziare timit immigré yëpp yu nekk ci àdduna bi yëpp mooy ñi nga xam ne immigré ñu ngi nekk dans les pays d'accueil ak tamit immigré de retour yi. Mhm. waaw di leen nuyu bu baax di rafetlu bu baax invitation bi. merci Lo jërëjëf euh, si euh, si présentation bu ñu ngi ci dégg euh, lu ñuy wax FEJ e. mhm. maanaam programme di FEJ e. bu fekkonte ni tey jii nii da nga ma koy définiral mhm. maanaam di ma ko faram-fàcceel ci tënk lan nga may wax. waaw FEJ e mooy formation action pour l'employabilité des immigrés et des jeunes. Mm-hmm. Euh, mu nekk programme privé. Mm-hmm. boo xam ne euh, suñu cabinet euh, ndax ñun immigré de retour lañ. def mm-hmm. nañ fukki at ak ñaar ci àll bi. diggante Italie ak Espagne. 2012 la ñu ñibbisi créé cabinet GTR. muy cabinet boo xam ne. dafa taxawoon ngir jàppale immigré yi. ndaw ñi ak tamit jigéen ñi. di yëngu tamit ci wàllu immobilier. ci la ñu gis ne mm-hmm. euh, immigré yi mm-hmm. amoon nañ jafe-jafe pour ku leen taxawu mm-hmm. ci seen ay projet ku leen taxawu ci seen ay retour ku leen taxawu daal moom daal gis nañ ne jafe-jafe yi bari woon na ci la ñu nag liggéey ci ñetti at 2012 ba 2015 ñu liggéey programme boobu muy programme FAES muy formation action pour l'employabilité des immigrés et des jeunes Euh, fi mu toll nii lancé woon ko ci 2015 bi. Mhm. ci place du souvenir. Mhm. Euh, présence su autorités yu bëri. ak OIM. Mhm. Euh, tamit ñu si doon liggéey. en parfaite collaboration. ak tamit état bi. ndax état bi mënoo dem bàyyi leen. comme ñoom ñoo ñu njaboote. Euh, ñu travailler ci ak état bi travailler ci tamit ak les acteurs directs mm-hmm. euh, maanaam dem di def ay mission en double espace mm-hmm. mission yoo xam ne dañ doon dem Espagne mm-hmm. euh, Italie Brésil fu nekk fekk immigré yi taataan seen ay jafe-jafe waxtaan ak ñoom xool li nga xam ne vraiment mhm. euh, yittewoo nañ ko mhm. ci loolu la programme FAES tënkoo mhm. euh, ba nga xam ne tey jii nii ñu ngi ci deuxième phase bi muy 2018 2020 kon su ma déggee sa biir wax euh, yéen a ngi créé boobu le programme si 2015 bi lan moo leen motivé woon ba ngeen jógee Espagne bi ngeen nekkoon ñëw Sénégal daal di ubbi loolu pour fësal yéenee toog d'accord parce que boo xoolee li ñuy wax naan Euh, tukki. Mhm. Euh, booy tukki boo àggee tamit war nga waajal sa retour. Mhm. ndax euh, tukki am na solo trop. Mhm. expérience la. wut la. bëri na njariñ ñu ci nekk. waaye nag boo demee ba tukki tamit. war nga xalaat ne mankat man fa ma jóge woon. dama faa war a dellu. léegi nan nga fa war a delloo. man 2008. Mm. maa ngi ñibbisi 2012. Mm-hmm. waaye sama ñibbisi. 2008 mm. laa ko commencé. 2008 laa commencé waajal sama ñibbisi. Mm-hmm. ba 2012 ni ma toogee. Mm-hmm. nga xam ne kon ñeenti at. kon nga xam ne. dafay wane ne kon euh, ñibbisi retour yombul. parce que déjà boo nekkee ci àll bi. Euh, par exemple mën naa joxe exemple euh, suñu mag ñu baax ñi nga xam ne. ñu ngi entre Italie Espagne Allemagne France tout mm-hmm. ça nga xam mm-hmm. def nañ fi lu ëpp ñaar fukki at mm-hmm. nga xam ne dañuy dem ba mujj habitude bi ñu am mm. euh, ndax dund yi bokkuñu ñun africains yi surtout Sénégal dañu am suñu ay réalité yoo xam ne boo fekkee ne ñëw nga euh, te fekk amoo benn expérience bi wala amoon noo noo waajale rek boo ñëwee fii da ngay am déception parce que loo dugg rek mm. Euh, dafa am réalité yoo xam ne moo nekk su le terrain. Mm-hmm. parce que bëri nañ gis nañ ko ñu bëri ñoo xam ne. Mm. Euh, bi bi itali bi muy def ay départ volontaire. Mm-hmm. jël nañ seen départ volontaire ñibbisi. Mm-hmm. mais ñooñ ñëpp tey ji mënoo ci gis kenn ku ci desee ab boutique. ñoom ñëpp liñ indi woon jeex na parce que lu tax waral mooy waajal luñu retour bi. Euh, ci loolu nag ñun ci la ñu commencé 2008 waajal suñu retour. di ñëw di dem. Mm-hmm. Euh, lépp lu ñu war a dox tamit lépp lu ñu war a def. Mm-hmm. ñu teg ko ci ay projet yoo xam ne dafay nekk projet yu wóor. Mm-hmm. projet yu leer. ci noonu la ñuy dem nag ba taxawal cabinet bi 2012. ñibbi si. di liggéey nag ba fi mu toll nii. ñu lancé programme FAES bi. ba 2017 ñu lancé Proximville bi nga xam ne. moom mooy euh, programme bi nga xam ne tamit dafay jàppale. Euh, Sénégalais yi surtout immigré yi. Mhm. pour ñu mën a am dëkkuwaay. dinañ ci ñëw. Mhm. Mhm. jërëjëf euh, wax nga ni euh, programme boobu yéen a ngi ko taxawal waaye dafa mel ni su ma la déggee yéen jeunes yi rek ngeen di jàppale. pour pourquoi mënul jàppalewu leen mag ñi nga xam ne yàgg nañ foofu aussi. nga xam ne non non xam nga bu ne bu ne jeunes yi. mooy liñ ci wax mooy jeunes yi nekk Sénégal. Ah, mais ah. bu ne immigré moom. Mm. génneetu ci kenn. parce que boo xasee ba ne immigré rek. Mhm. Euh, immigré bu ndaw bi. Mhm. immigré bu mag bi mhm. jigéen ji yépp ñu ngi ci biir moowu immigré. bu fekkee ne nag léegi euh, ci biir Sénégal au niveau local parce que programme bi. du pour immigré yi kese. moo tax ñu ne les immigrés. les jeunes et les femmes. maanaam immigré yi. bépp xeetu immigré rek mi ngi parce que tey jii boo xoolee. suñu base de données am nañ presque plus de dix mille immigrés. Mm-hmm. yoo xam ne ñi ngi vraiment jëflanteeg ñun am nañ ak ñun contact. Mm-hmm. Euh, ñi ngi waxtaan ak ñoom. Mm-hmm. ñu si bëri ñi ngi leen di orienté. mais bëri na ci ay mag. ñoo xam ne wax dëgg yàlla macha allah. weesu nañ. Euh, cinquante ans. soixante ans. am na ci jeune am na ci tamit ki mais euh, boo xoolee ci réew mi. def nañ dix régions. yoo xam ne. def nañ fi ay projet mhm. euh, déposer leen projet yi jàppale leen mhm. def nañ fi ay formation mhm. euh, def nañ ay formation pour les immigrés de retour à Diourbel fu mel ne Diourbel fu mel ne Pikine euh, ak tamit même suñu locaux yi mais programme Fayez li ko taxoon jóg na xam ne ci lay dox mooy na fexe ba immigré bi daal bu bëggee ñibbisi ñun daan ko tette mm-hmm. wan ko yoon wi mm-hmm. wan ko fan la war a teg tànkam mm-hmm. fan la war a dox ba nga xam ne bu ñibbisee bisee dana mën a euh, euh, adapté wu ci réalité bi nga xam ne moom la moom la ñu dund tey fi Sénégal nekk ci rayon jaajëf am na solo xam naa ci kaw loolu rek eh, ci la tataane taataane euh, kaddu kenn ci wala ñenn ci ay immigré ñoom tamit ñu joxe seen xalaat ci thème bi nga xamante ni ci la nekk nii di ko waxtaanee Euh, ah. salaamaaleykum wa rahmatullah euh, soxna Aminata Diop maa lay nuyu bu baax di la ziar di la remercier ci invité bi nga xam ne invité nga ma ko ci sa waxtaan sama participation ci lu jëm ci immigration ak seen retour dans le pays muy loo xam dafa am solo euh, parce que képp koo xam ne yaa ngi génn dafi wuti xam-xam wala ngay wuti koom-koom dafa laaj moment boo xam ne da ngay war a delsi fa nga jóge woon muy koom-koom ba muy xam-xam ba nga delsi ko waat ko def ko ci sam réew réew mi développé réew nag du rek wut ay milliards wala wut ay millions mais développé réew mooy fexe ba euh, ñeneen ñi nga xaar ñi nga woon foofu seen xam-xam wala seen man-man yéegul woon fenn nga ànd ak ñoom ngeen liggéey ba taw lu fa nekk tey jii dootoo soxla di am passeport di tukki wuti dara xanaa wut passeport ngay pour xanaa xoolee rek. adduna bi comme ni ñu ko waxee tourisme dellusiwaat ci sam réew loolu nag dafa am lu mu laaj lu bëri li mu laaj mooy immigré buy retourné réew c'est pas que rek dafa war a indi xaalis rek di financé mais dafa war a ñëw fa mu juddoo woon ca gox ba mu juddoo woon yaroo fa mais dafa war a am loo xamante ni tam état daf ko war a ànd ak ñooñu mooy lan ànd ñoom ci lépp loo xam ne lii euh, lu leen mën a soutenir la ci suuf si parce que ku nekk xam na ne suuf moom lanu yàlla booleel nu man ci suturu ci la ñuy jëlee ci la ñuy jëlee gàncax bu liggéey lekk ca lay jëlee lépp kon nag suuf dafa am doole ci réew mais nag état bañ a jël rek toog borom doole bu ñëw jóge ci àll ba ñëw rek say programme nga jël suufu néew gi doole yi jox leen kooku du développé réew parce que ñoo yeng koy jox buñ fa ñëwee seen i jumtukaay yu xarale yi iddaale yoo xari ñetti nit ñoo ciy liggéey kon xam nga kooku du développé moom réew la fay jëlee da koy daan dugal ci bateau yóbbu mu réew wala mu yóbbu feneen jaay kon xam ah ci corruption la ñuy dudd ah kon def naa la loolu du développé réew moo tax ma ne dañu fexe ba préfet yi sous préfet yi euh, communauté rurale yi fexe ba néew gi doole yi suuf sa nga xam ne plus de cent ans wala cent cinquante ans ñu nekk fa ak seen i maam dañu fexe ba suuf yooyee buñ leen ko xaj dañu seet état bi nu ñu leen accompagner ñu fexe ba suuf soosu ñu may koy jariñoo noor ak nawet loolu mooy développé réew moo tax ma ne immigré buy retourné dans son pays dafa war a am accompagnement de l' état li mu war a dox fii ne actuellement Sénégal du concentré wul ci Dakar rek ba nga commencé ci Richard tool ba ba ngay dem dans la région de Casamance war nañu fay jéem a seet li nga xam mooy communication yi en ce qui concerne voie ferrée voie en route ñu fexe ba lépp moderniser aw jaar yoon boobu war na jaar fexe ba ngay xam li nga xam mooy en communication en ce qui concerne muy internet bi wala dara lépp ñu fexe ba fonctionner fépp ci Sénégal li nga xam ne mooy ndox bi ñu fexee ba itam nit a am ndox parce que ndox mooy accompagner lépp ak seen parce que am na fii émigré yoo xam ne màcc nañu ci li nga xam mooy euh, bay wala li nga xam ne mooy industrie lu jëm ci construction des routes wala construction des ponts euh, wala li nga xam mooy ay tunnel te nga xam ne Sénégal amul boobu cas Sénégal defe naa ne pour nga defar fa ay train wala nga defar ay route defe naa ne effort bi mu laaj bëriwul moo tax euh, defe naa ne yenn chiffres yi wax sax ni def nañ ko ci route wala dara daf may xaw a jaaxal parce que foo xam da ngay ñëw rek maase la jàll teg tëli wala nga teg train vraiment laajut yenn assurance yi voilà yooyu yëpp mooy xam état moo ci war a ànd ak yëpp bu feeñ kenn ku nekk fa nga nekk nga mën fa toog teerek sa njaboot bi mën fa jànge mën fa nekk di liggéey mën fa def information def fa lépp la nga xam soxla nañ ko euh, comme par exemple dama ko waxee doomu Casamance warul rek euh, jóge Casamance pour mu doog a mën a am passeport pour mu doog a am carte d'identité wala doomam war a a jàng université parce que les zones boo xam dafa xaw a foofee lépp fa la koy fekk seen doom man fa jàngee ba ba ñuy jeexal seen jàng di def université wala ñuy def leneen lu mën di doon ragal naa ne loolu mooy li nga xam mooy li développé Sénégal te war nañ ci jéem a jéem a jóg di nekk di opposé ak paysan warul foofu di opposé wu ñoom di wala mu bàyyi ay sous-préfet wala dara ñu nekk foofu di def seen corruption di ànd ak euh, ay président communauté rurale di nangu suuf jàmbur yi di dal seen kaw di leen jaay doole te loolu kenn waxu ko mais il faut ngeen dem tasaaroo ci Kajoor fa laa juddoo fa laa yaroo xam naa li nit ñi dund kon nag kii journaliste wala dara nañu jéem a fa fauteuil ci àll bi man defe naa ne liggéeyal Sénégal du sol ay cravate du yori costume rek wala nga yor ay auto climatisé mais man defe naa ne euh, yor Sénégal dafa laaj nit ñoo xamante ne dañoo am volonté di liggéey di génn di ñàq ni yëpp doomu aadama yi comme ni ko Europe gii defee parce que fii doo fi daje mis naakee bi xam ne ndax mis la wala déet le monde waaw di jël train yi comme yëpp di dem ci àll bi di xool li gis naa ne nag Sénégal ku ñuy fal nañ la dara rek daal ngay def sa bopp buur daal di nekk toog fee dootoo laal dootoo xam ab xaalis rek ngay lijjanti wala leneen man nag loolu vraiment bokk nañ li nga xam mooy tardeel Sénégal suñ continuer ci loolu nag suñu doom yi faaw ñuy continuer di immigré ci àll bi problème bi loolu la parce que immigré mënoo immigré ba dajalee milliards c'est pas possible quelques millions wala quelques somme bu yam nga mën a amee ci Dakar wala yenn gi war nañ ko laaj foo ko jëlee voilà kon nag loolu moo tax ma ni euh, euh, retour des immigrés dafa laaj loo xam ne Sénégal euh, immigré yi ñoo ci dëggal l'état moo ci war a participer ànd ak ñoom liggéey ak ñoom li ñu liggéey ak ñoom nag mooy fexe ba ñi nga xam ñoom la ñu dénk constitution wala ñi nga xam ñoo yore gox yi ci àll bi nga xam ne comme sous préfet wala préfet yi wala communauté rurale yi président communauté rurale yi wala ñeneen ñu seet nit ñoo dañoo ànd ak nangoo liggéey ak nangoo jub di communiquer ak aadama yi mais nag ah, ci àll bi sonn nañ ndax ñu ngi dal seen kaw ñu nangu seen alal ñu nangu seen i suuf kooku moom c'est quelque chose boo xamante ne nii buñ ko ko nee doon lu baax loolu jëmalewul Sénégal doole jëmalewu ko ci kanam voilà man bëggoon naa daal Sénégal yi jéem a réfléchir parce que ay nit bu fekkee ni jubuñu xool ñuy diggante seen diggante ak doomu aadama ak euh, seen trayu bàmmeel ah du ñu mën a développer réew ak jub ak nangoo liggéey mooy mën a développer réew waaye vraiment fan lañ mën naa ñaari fan nga mangook euh, mu nekkoon euh, ki nga xamante ni mooy euh, benn immigré di ñu koy jaajëfal bu baax a baax di Basirou Thiam papa Basirou Thiam nekk ci diwaanu Italie Abdoulahad Lo monsieur Abdoulahad Lo taataan nga li nga xamante nii moom la jot a wax ban mhm. jàngat nga ci am ci ay kàddoom waaw am na lu wax na lu am solo mhm. ndax xam immigration moom mhm. dafa nekk lu yaatu lu fasantikoo mm-hmm. gox bu ne dañu am lu ñuy dund mm-hmm. immigré bi ne Italie ak immigré bi nekk euh, France ak immigré bi nekk Espagne mm-hmm. ak immigré bi nekk Mali euh, pour citer rek différence euh, ak ki nekk États-Unis yemuñu dafa am ay réalité ay gox par gox immigré bi muy dem di tukki tàggul état bi tàgguwul ñu si bëri tàgguwul seen ay mbokk. Mm-hmm. Euh, da ngay jug sa xel nekk ci naa dem dem liggéey. Mm-hmm. ngir lan mm-hmm. ngir yow nga fexe ba am sa réussite. Mm. maanaam yow bi ngay jug di dem. Mm. yow da jugoon pour dem liggéey pour réussite toppatoo sa jaboot euh, état bi tamit am leneen lu ko war état bi li ko war mooy. fexe ba ëmb képp koo xam ne njabootam la taxawu leen ci lépp lu jëm ci wàllu administratif ñu fexe ba seen ay passeport ak seen ay document administratif yëpp mu yomb leen jege leen mm-hmm. bi ci des tamit mooy mu accompagner leen mm-hmm. ba na xam ne comme li ñuy waxtaane tey bu ñu bëggee def seen retour mu mën a yomb mm-hmm. kon je pense que ne li mu wax am na solo trop euh, mais man li may gis mooy en tant que immigré de retour mooy que ne ñun immigré yi. Mhm. war nañoo euh, maanaam fexe niñ fexe woon ba demal suñu bopp. góor mhm. góorgóorlu dem foo xam ne déggoo langue bi bi nga fay dikk dañ laa fat. Mhm. indaale woo cent franc. nga dem fa ba dégg langue bi. Euh, am sa kër ñoo am sa kër goo xam ne yaa fa dëkkal sa bopp. Euh, yàlla defal la réussite. nga dem ba nga xam ne waa réew moomu sax. ëppatuñ la fa do euh, ëppatuñ la fa euh, li ñuy wax euh, ay ay dayoo. sañ-sañ mhm. sañ mhm. kon kooku tamit. Mhm. noonu mu defoon. ba am réussite boobu yëpp. man pour man loolu la war a defaat. ba mën a retourner waat Sénégal. investir ci biir réewam. mën a fexe ba créer emploi. mën a fexe ba def transfert de de. Euh, d'expérience. Mhm. Euh, technologie yi na xam ne ñu ngi koy jàng. Mhm. parce que tey dama doon wax ne euh, am na dëkk bu ma nekkoon à deux mhm. fu ñuy wax Bassano del Garappa. ñu ngi nekkee ci Treviso. Treviso ci région de Veneto la Italie. def naa fa mil 2001 ba deux 2004. ci laay doog a dem Espagne. foofu noonu. liggéey naa fa ci ay usines yu bëri. Mm-hmm. bi ma fa mujjee liggéey Bergamine la tuddoon na xam ne def naa fa presque huit mois. Mm-hmm. Euh, ñoom fromage lañ doon defar. Mm-hmm. mais euh, maanaam ñun yàlla moo ñu may ñun sénégalais yi. macha allah da ngay gis ñag bi. ñu ne la ñag bi am na fi dix ans. sénégalais bi ñu ne la kii huit mois wala un an la amagun ci réew mi. li muy làkk ci italien. ñag bi sax mënu ko wax. Euh, bu ñëwee tamit évoluation bi muy am ci biir usine bi mm-hmm. ñag bi sax mënu koo am. parce ñag yi sax dañu doon dañ dangay am benn jalousie boo xam ne day am sa diggante ñoom. Mm-hmm. Sénégalais bi bu agsee foofu noonu ay jamono. Mm-hmm. ay deux mille quatre vingt dix huit deux mille ba deux mille deux. tubaab yi ñooy woote ci kër Moodu yi. di laaj est-ce que amul ku toog foofu te liggéeyul. pour pour yebal ko mu dem liggéey. Mm-hmm. nga gis kon tubaab yi ni ñu xamee woon. Mm. xarañte sénégalais. dëgg la nga dum ci usines yu bëri. Mm-hmm. boo dikkee mm-hmm. chef de réparto. Mm. ay sénégalais lañu. koo xam ne tool ya la jógee directement. maanaam bi mu dem itali ndakaaru li ko booleeg moom mooy jël vol. mu dem nekk Italie mm. liggéey fa donte ñaari at. dem ba nekk chef de réparto. maîtriser liggéeyam liggéey boo xam ne bu ñëwee kenn du ko wan machine bi nu koy taale kenn du ko wan machine bi lu mu war a produire kenn du ko wan dara de produit fini léegi nag loolu man jàpp naa ne loolu la ñu war a def transfert ñooñu ñoo war a préparer seen retour la ñu jàng foofu la ñu gis foofu ñëw indi ko ci réew mi créer emploi bu ko defee Sénégal jëm ci kanam dëgg Mhm. macha allah eh, sànq sa biir wax ci eh, programme FEJ da nga wax ni li ko tax a jóg mooy jàppale ñi nga xamante ni ñooy immigré yi eh, ak it ma bëggoon a xam ci kaw ñooñu ngeen leen di jàppale pour ñu mën a dem tukki wala te it ña fa nekk am ay jafe pour bëgg ñibbisi ak ñooñu ngeen dina jàppale mais jàppale boobu bëggoon na maa xam ci naka lay dem. waaw du jàppale boo xam ne pour ku bëgg a tukki du jàppale tamit. pour ku am yi jafe-jafe ndax bu dee ku bëgg a tukki dangay dem ci ambassade yi ñaan visa mhm. euh, bu ko defee ñaan visa de travay mhm. walla visa boo xam ne ñaan nga ko pour mën a dem tukki mhm. euh, ñu ci tamit soññ bu baax xale yi ñi nga xam ne ñu ngi jaar ci ci gaal yeeg yooyu ak tamit fu mel ne Maroc na xam ne mm. ñun yenn saa yi dañuy jóge Europe euh, jël oto dawal ko Maroc ba kii Espagne ba mm-hmm. fii mm-hmm. gis nañ nit ñi coono yi ñuy daj mm-hmm. ci diggante Maroc ak diggante Mauritanie fu mel ni Oujda nga ne tëj nañ ko léegi sax mais foofu lu ne xew na fa diggante mu ngi nekkoon ci diggante Algérie ak Maroc muy àll boo xam ne daanaka kenn moomu ko ñu bàyyi woon fa af Afrique subsaharienne yi ñu nekk fa euh, Sénégal yu bari nag des nañ fa yu bëri ñàkk nañ fa seen ay doom ñu lañ leen di jaale mm-hmm. te loolu nga gis fu mel ne Sahara bi tey jii nii yoonu càdd bi Niger bi ubbi ni ñi jaar fa mm-hmm. dem Libi mm-hmm. nga gis li fa des lépp kon dafa naa ne sénégalais li ko yàlla may xarañte bi ko yàlla may ak timit xel mi ñu yàlla may ak nangoo liggéey nga xam ne réewu européen yeeg yëpp xam nañ ko si ñoon mhm. defe naa ne képp ku bëgg dem mhm. pour immigré ji war ngaa def ñaan dem def immigration légale bi ci des mooy pour kuy ñibbisi si ku am jafe-jafe mm. état bi dafa teg benn direction boo xam ne ci DGSE mooy mooy direction des Sénégalais de l'extérieur mhm. euh, euh, ci direction boobu état bi dafa teg benn direction boo xam ne loolu mooy liggéeyam koo xam ne am nga jafe-jafe euh, direction sociale boobu mën la jàppale ami Mbàkke madame Mbàkke moo fa nekkoon mm-hmm. léegi xaw ma kan lañ fa nommé. Mm-hmm. Euh, ñoom ñooy def loolu mais programme FAES ñun. Mm-hmm. Euh, programme privé la yoruñu xaalis. amuñu budget ñun li ñuy def mooy am nañu ay ingénieur am nañu expérience. xool nañu réew mi jàngat ko xam nañ bépp organisme. ak bépp fonds boo xam ne dañ koo jagleel immigré yi ñun nag li ñu def mooy tette immigré bi orienté ko fexe ba wan ko yooyu na xam ne mën na see jaar ba ak ñibbi ñibbiseem yomb bu boobaa tamit ñu taxaw ko ci projet parce que nit ki tamit mënoo ñibbisi te amoo projet da war a am sa projet mhm. li ñuy wax naan euh, jaaykatu kii bi sax am na projet am. Mm-hmm. sa projet nag. Mm-hmm. du da nga koy yenn rek mais projet bi danga koy bind. Mm-hmm. Euh, ba pare tamit nga xam ne projet bi kat nii lay doxee ndax projet. dafay am euh, ay études. étude sur le marché. étude technique. étude financier. nga xam ne yow da war a xam lépp maîtriser sa projet ba nga xam ne. tey jii boo jàkkaarloog banquier bi lay lebal xaalis dana xam ne kii li muy def xam na ko waaye ñu si bëri ci immigré yi euh, dañ lay woo sax ne la yow daal xoolal projet bu bu mën a génne xaalis rek nga defal ma mhm. am nga ki lay wax loolu mooy que mhm. ba ko defalee projet tamit ba xaalis ba banque bi lebal ko mhm. moom projet ba nga ko defaloon détournement d'objectif lay def ça veut dire projet boobu tax koo jóg euh, loolu jafe-jafe yu bëri la yoo xam ne jànkonte nañ ko kon ñun suñu liggéey mooy tegtee leen wan leen yoon wi tey jii boo xoolee état bi am na donte ay fonds yooyu am nañ ci ay réserve parce que lu mel ne FAISE mm. 2017 ba léegi financé wul te président nee na woon trois milliards la ciy def chaque année mm. foofu war nañoo xam ba xam lan moo tax mm. programme boobu financé tul immigré yi lan moo tax timit comme alalu askan wi la. Mhm. président di ko jox di ko dugal foofu. Mhm. kon ñiñ koy defal war nañ koo gis. Mhm. mais am na yeneen fonds. lu mel ne ay fonds yëpp mi ngi jàppale euh, tous les sénégalais am na euh, Fugaris benn fonds bu nekk ci biir bu ñuy wax fonds boo xam ne dañ ko jagleel sénégalais l'extérieur yi. bëri na ay projets yu ñu fa dugal. Euh, fu mel ne Place Prix fonds la boo xam ne tamit italiens yi ñoo ko créé woon ak gouvernement du Sénégal ba xam ne. def nañ deuxième de première phase bi ba ñu ngi ci deuxième phase la ñu war a lancer. Mm-hmm. lu mel ne ay PASD nga xam ne ñoom ak ADPME. Mm-hmm. ñu ngi lancer deuxième phase bi ak AFD coopération française mm-hmm. nga ne tamit pour financer les projets des immigrés il y a euh, kii yi bëri fonds yi ak opportunités yi bëri na bëri goo xam ne yow xëy na bu fekkee ne da ngay nekk di liggéey euh, comme man ni ma ko doon defee nga xam ne xëy suba teel liggéey. Euh, wàcc. wàcc daanaka dix boo agsee sa kër yaa ngi fay agsi vingt heures sonn xam nga kooku doonu boo agsee li muy tal mooy sangu reer tëdd. xëy na bu bu weekend yi mu daal di concentré wu njabootam. kon ñooñu duñ mën a xam eh, opportunité yi duñ mën a xam tamit fi ñu war a mën a teg seen tànk bu boobaa nag léegi eh, boo bokkee ci programme FAES dañ lay mën a tette ngay mën a am accès à l'information. di mën a xam tamit fan ngay mën a euh, teg sa tànk loolu moo waraloon loolu mooy dëgg dëgg dëgg li nga xam ne euh, moom la ñuy def te ñu ngi ci am ay résultats yu am solo. Mm-hmm. macha allah am na solo en même temps tamit euh, yaa ngi yore programme mu Proximville. maanaam jàppale ñi nga xamante ni ñooy di uh, ay immigré uh, pour ñu am li nga xamante ni moo di dëkkuwaay boobu tamit bëggoon nañ ci xam uh, jàppale boobu ci naka lay demee te it bëggoon nañoo xam ndaxte Proximville dañ ko jagleel ñi nga xamante ni ñooy immigré yi kese wala pour sénégale yëpp la. Euh, Proximville euh, mooy accès aux logements sociaux accès aux logements mais particulièrement logements sociaux parce que boo xoolee. Sénégal am nañ déficitu presque lu ëpp cent mille logements par an euh, na xam ay études moo ko génnee euh, boo xoolee ñi ci ëpp ci Sénégal yi dañuy luye kër yi ndëkk moomuñu ko euh, boo xoolee tamit trois millions immigrés ñoo nekk ci àll bi di dugal mille trois cent milliards at mu nekk ñu koy dugal ci réew mi ci wàllu quatre-vingt-dix-neuf pour quatre-vingt-quinze pour cent yëpp. Mhm. ci social la jëm. Mhm. maanaam ci ay ay ay ay ay ay dépenses. Mhm. ay ngénte ay nangam nangam. cinq pour cent moo ci nekk investissement. Euh, immigré yi boo xoolee ñu si ëpp ci ñoom maanaam amuñu kër. Euh, léegi nag ñun euh, en tant que expert. en tant que koo xam ne dafay yëngu ci wàllu woowu. ci la ñu taxawalee Proximville. mu nekk euh, société boo xam ne. Mm-hmm. dafa ñëw pour mm-hmm. yombalal sénégalais yi. Mm-hmm. pour ñu am ay dëkkuwaay. mais nag par catégorie kenn ku ci nekk catégorie bi na xam ne tey jii nii kii nga ko ci loolu avant ñu koy créer euh, Proximville liggéey nañ ñun cabinet bi liggéey nañ ak promoteurs yi na xam ne yëpp yu mag yi nekk ci Sénégal ñi nga xam ne kenn ku ci nekk li ngay def euh, ànd nañu ak yow. ba jaayal la sax lu bëri commercialiser la lu bëri ci say kër xam tamit am expérience bu baax a baax a baax ci suuf nan lañ ko war a amee ci suuf bu baax nan la war a mel ci suuf yan këyit euh, moo war a am euh, yi nga xam ne euh, day nekk këyit yoo xam ne boo ko amee day nekk këyit yu wóor ndax bëri na immigré yoo xam ne dañ ñëw rek ñu ne la jaay nañ la benn terrain jas nga nga ne ah am na terrain fekk yow fa nga am jas ka la ko jaay mhm. tey jii boo fa doon dem ak moom rek mhm. maanaam pour nga dox ba àgg ca terrain ba problème la mhm. ndax ñàkk accessibilité ndax ay tool la yu ndagg ñaareel ba amul tiitre nii bàyyi ni titre foncier na xam ab délibération la boo xam ne dafa nekk ci domaine national tey nii état bi ëllëgee bu ko soxlaa mën na koo récupérer yow dangay ngay ñàkk euh, ba pare ñu mën koo jaay kii jaay ko kële jaay ko kële léegi nag ñun ñu ne léegi kon pour organiser loolu. Mhm. ñun bépp terrain boo xam ne dañ ciy dugg ñun Proximville. Mhm. day nekk loo xam ne bàyyi lay doon. Mhm. wala mu nekk loo xam ne titre foncier. nga ne nit ki mën na koo jënd dem ci notaire bi signer def ay kii euh, kiyam euh, dem def euh, def ay mutation am def lépp mu nekk ci moomeelam. ci loolu ci la ñu lancé benn programme Bambilor. boo xam ne sans logement la. na fi ñu toll nii ñu ngi ci viabilisation bi buñ paree la ñu war a démarrer construction yi. Mm-hmm. ba pare nag def ko nag ci ay prix yu yu yu yu jàppandi yoo xam ne titre foncier la. Mm-hmm. beneen bi mooy ñu en tant que promoteur boo xam ne ak expérience bi ñu am. Mm-hmm. ak partenaires yi ñuy liggéeyal muy ay partenaires techniques yoo xam ne. Euh, macha allah euh, ñu. bokk si ñi nga xam ne euh, ministère de l'urbanisme dañoo jox agrément mm-hmm. euh, pour que ñu jàpp ci li ñuy wax les logements sociaux mm-hmm. nga xam ne cent mille logements sociaux yi Proximville mm-hmm. bokk na ci ñi nga xam ne agréé nañ leen ba nga xam ne tamit lancé nañ suñu programme am nañ ay prototype F3 yoo xam ne moom lañ proposé ba na xam ne incha allah ñi ngi ànd ak ministère bi pour que nu mu gën a gaawee ñu mën a démarrer ba début deux mille vingt et un mhm. ñu mën a commencé sénégalais yi di xam ne euh, cent mille logements yi lu wér la lu wóor la te tamit du waxi politicien parce que mhm. ñun mhm. état bi tabaxul. état bi dafay jël ay promoteurs. yoo xam ne am nañ capacité natt nañ ñu ndax amul këyit bu ñu laajul avant ñu ñuy jox agrément bi. commission bi ci bi bi siège tamit pour joxe agrément bi commission bu yaatu la boo xam ne képp ku ci war a bokk bokk nga ci. buñ ñooñu ñu agréé état bi dafay jël suuf jox ñu. Mhm. nañu ah Proxim bi kat yéen am ngeen fii tant de hectares muy tant de logement. Mhm. yéen yéen a koy tabax. Mhm. waaye nag amu leen droit. jaay ko lu ëpp douze million de dix à douze million la ñuy jaayee kër yi. kër yooyu ñuy jaaye de dix à douze million état bi moo ñu jox suuf bi gratuitement ba pare tamit mën naa am mu aménagel ñu ba pare tamit defal ñu tamit li ñuy wax. Euh, ay exonération ci ay taxes. Mhm. loolu dafay wàññi presque kilomatre vingt pour cent. Mhm. yoo xam ne dañ koy mën a dabu. Mhm. ba tax ñu mën a def ay logement yu mucc ayib. yu war a jar dix huit million ñu jaayee ko onze millions wala dix million cinq cent mais du àgg douze millions. Euh, ci loolu tamit euh, liggéey bi avancé na bu baax a baax a baax nga xam ne kon ñu xamul ñu bëri. ni état bi taxawale cent mille logements yi. mooy ne état bi tabaxul état bi mayewul état bi jaayul état bi li muy def mooy encadré ah, ah. promoteurs yi encadré tamit ñi jënd mhm. ñi jënd ñëpp tamit taxawal na benn fonds boo xam ne fonds boobu mooy mën a garantie informel bi mhm. ki nga xam ne mi ngi jaay caaf mën a am euh, am location di fay soixante mille francs par mois mais kooku noonu bu mu ci génnee boppam mën naa am kër ndax eh, bu bindoo ci logements sociaux yi euh, ba na xam ne ñu affecté ko fa mu war a promoteur bi ko war a tabaxal euh, bu boobaa fonds bi nga xam ne moom la état bi teg. Mhm. moo koy garanti banque yi nga xam ne mooy banque partenaire yi mën a ñëw financer ko dix ans ba quinze ans ba vingt ans. Mhm. parce que bu demoon ba vingt ans. Mhm. daanaka kon xam nga kooku. boo moytu sax soixante mille francs yi mu doon fay dana fay lu ko xaw a wàcc tuuti. loolu mooy politique bi nga xam ne moom la état bi teg. Mm-hmm. ba nga xam ne exclure ñu ci kenn. Mm-hmm. ñëpp mën nañoo am kër. Mm-hmm. menuisier métallique bi nekk di liggéey. mën na am kër. tailleur bi nekk di liggéey mën na am kër kenn kenn ah, mën mënul ne génne nañ la ci kudit ki nga xam ne. déjà moom am na këyitu këram am na këram titre foncier mi ngi ci turam kooku du priorité parce que kooku am na. keneen ku gën nekk priorité. Mhm. wala ki nga xam ne tamit am na salaire bu ëpp quatre cent cinquante mille. Mhm. xam kooku tamit mën na boppam. Mhm. moo tax cent mille logements yi. na Sénégalais yëpp ubbi seen bët xam ne. am nañ ci accès ndax danañ def lu mat kaa quatre euh, quarante mille logements. ci diggante Dakar Thiès ak Mbour. yeneen soixante mille yi nag moom la ñuy tas. ci euh, région yi. na xam ne Sénégal gépp lañ koy tabaxee loolu. Mhm. Euh, ci la Proximville mhm. euh, taxaw mhm. war a bokk ci ñi na xam ne tamit ñooy def ci logement sociaux yooyu. ba pare tamit am ay programme privé yoo xam ne tamit. à Bambilor ak à Sangalkam. ñu ngi fay def Sangalkam ñu ngi ci def benn programme boo xam ne. programme bu mucc ayib boo xam ne standing la. parce que li ma wax sànk rek promo immobilier. ay ay ay ay kii la nu mu tuddati ay catégorie la. kenn ku si nekk nag dangay jël li nga xam ne. Euh, euh, fexe ba li nga tollool nga yem ci loolu. bu ko defee nag ñëpp mën a am kër. Mhm. immigré yi tamit ñoom ñëpp ñu mën a jaar si ñun wala ci promoteurs yi nga xam ne agréé nañ leen. wala ci plateforme bi nga xam ne état bi teg na ko. Mhm. ñoom ñëpp tamit ñu mën a am accès au logement. Mhm. kenn dootu leen nax kenn dootuñu joxe seen xaalis fenn foo xam ne bu ëllëgee dañ fay am ay jafe-jafe këyit yi xam nga li ngay gis sàng ci tele bi jamono yee paase. Mm-hmm. ñu ñëw tabax seeni kër ba pare kenn ñëw ne ñu maa moom mm-hmm. ñëw daaneel ko mm-hmm. xam yooyu yëpp noonu defe naa ne euh, lu war a mën a dañ Sénégal la mm-hmm. te je pense que ne euh, njiitu réew mi ak mm-hmm. ñi ngi ko seqal mm-hmm. le ministère ñu ngi ciy liggéey bu baax kon daal su ma la déggee dafa mel ni seen programme boobu euh, parce que ñi ngeen ko jagleel mooy ñi nga xamante ni seen loxo daanaka jotul seen ginnaaw ndax da nga ni li ko dale 10 millions ba 12 millions kon ci loolu mun nga ko fay ci diiru 20 ans kon koo xamante daanaka weer bu dee mun nga dugal 60 mille mun am ci yooyu les kër. c'est la demee euh, ndax logement sociaux mooy socio social. d'accord social nag boo koy def mooy dangay xool kii la xoom jotul ginnaawam. Mm-hmm. nga jàppale ko ba nga xam ne mu mën a am parce que tey jii di boo xoolee tey bëri na ñoo xam ne ñu ngi nekk ci euh, ministères yi di liggéey nekk ci ministères yi euh, am ay salaire di dem di ñëw kenn xamul leen dara yàlla defal leen sutura. mais ñooñu tey jii nii ñu si bëri bu ñu jëlee seen bulletin de salaire dem ci banque bi bëgg a leb kër mais mënuñu am kër parce que banque bi tey pour mu lebal la mm-hmm. tey bu fekkee ne yaa ngi euh, euh, yaa ngi war a fay cent mille francs par mois mm-hmm. euh, maanaam boo amul salaire trois cent mille banque bi mun la lebal mm-hmm. kon tey jii nii ki nga xam ne salaire am cent cinquante mille la kon kooku mu du du mos am kër. dëgg parce que lu mu yor. dafay dem fay ko location ak ak ak lu mu lekk moom waa këram. Mhm. léegi nag euh, suuf euh, euh, kii bi na xam ne indi nañ ko. Mhm. mooy que ne kooku noonu. Mhm. état bi dana ko mën a garantir. ba na xam ne. banque bi du ko laaj benn garantie. du ko topp tamit ci ne trois quarts salaire am boobu la war a jël. ba na xam ne dana ko mën a jox kër gi. mu dëkk ci vingt ans ba vingt cinq an weer wu dee mu fay. na xamee loolu ci réew yi développé yépp noonu lañu développé. Mhm. parce que boo xoolee ñu naan la ñëpp dama jënd kër bëri na immigré yoo xam ne dañu jënd kër Italie dañu jënd kër Espagne. dañu mhm. jënd kër feneen. Mhm. mais noonu rek lañ ko jëndee bi ñuy jënd joxewul ñaar dërëm. état bi mooy teg politique de logement. ñëw nga ñëw boroom kër gi defar na ba pare. état bi garantie banque bi lebal la. d'accord fay ko deseeg yow. yow boo ko fayee vingt ans. ba pare sa kër la yaa moom. te boo ci dëkkee tamit da ngay xam ne. kër gi ma dëkk lu ma fi def sama kër a mm-hmm. euh, bu ko defee mm-hmm. loolu moo lay wan la képp koo xam ne yaa ngi nekk ci location amoo kër mm-hmm. yor sa njaboot bindul ci logement yi te xam ne incha allah danga ci am d'accord jaajëf euh, parfois dañuy faral di dégg euh, sénégalais bi nekk les sénégalais de la diaspora ak immigré bi est-ce que dafa am différence entre entre sénégalais bi nga xamante ni moom la ñuy woowee les sénégalais de la diaspora ak immigré immigration. Euh, ci wàllu logement yi. waaw non amul amul xàjjale parce que dañu bañ sax ba dañ ne da am na benn quota boo xam ne dañ koy jagleel immigré yi. Mhm. Euh, quota boobu noonu xam naa après bu ñuy lancer programme bi. xëy na ministre beeg yooyu danañ ci dikk. Mhm. mais immigré yi fàttewuñ leen benn yoon ci kii parce que man boo xoolee man. Mhm. Euh, sama programme. Mhm. daanaka mën naa ne trente ak quarante pour cent yëpp daanaka. ci immigré yi laa ko laa ko jox. ma dem naa fekk leen. wan leen suñu programme yi te tamit bëri na ñoo xam ne ay immigré lañ ñoo xam ne ñëw nañ seet si ñu. ba euh, bindu ci suñu programme. Mhm. ça veut que immigré yi ñoom ak sénégalais yépp a yem ci mhm. programme bi. Mhm. te ñoom sax ñoom bu dee immigré bi tey euh, parce que problème mu cinquante mille yooyu salaire bi loolu teggil nañ leen ko parce que immigré bi nga xam ne day gagné parce que bu dee Europe salaire yi bokkul. mën nga nekk Europe di gagné mille euro mais mille euros ñaata ngay dépensé yaa ngi yor kër goo xam ne yaa ngi ci war a fay cinq 500 euros. bokkut ak ki war a fay fii cent cinquante mille CFA. Mhm. moo tax léegi loolu noonu tamit dañ ne leen ñoom euh, maam titre foncier bi nag moom bu amee titre foncier. Mhm. kooku toujours ñoom éligible luñu ci logement sociaux yi mais bu fekkee ne nag léegi ñoom déjà salaire bi kese la salaire bi moom kontul ci loolu. d'accord ba tax na kon euh, pour gën a leeral rek ne. Mhm. immigré bi ak sénégalais lambda bi nekk fii. ñoom ñëpp a ñoom ñëpp am accès ci logement sociaux yi. Mm, d'accord euh, jafe-jafe yi nga xamante ni tamit euh, immigrés yi ñu ngi koy jànkonteel ci fu ñu mun a nekk mooy partout fépp ci euh, monde bi ñu koy jànkonteel yan jafe-jafe lañ la gën di jàmbat en tant que yow nga xam ni lu ci bëri yaa ngi diggante ak ñoom yow it dund nga expérience bi jaar nga ci lan moo gën a nekk jafe-jafe foofu ci béréb yi nga xamante ni moom la ñuy dund tey. Mm-hmm. Euh, soxna Aminata euh, waaw jafe-jafe yi bëri na jafe-jafe yi bëri na euh, tey jii réew ma neexatul tey boo demoon Espagne tey bëri na fa même ak itali ci zone yu bëri bëri na fa ñoo xam ne tey dañu nekkoon di liggéey di jaay ci mercato yi li ñuy wax mercato ji walla marché samedi yeeg marché dimanche yi mais ñoom ñëpp noonu tey jii nii. da ngay xool ne euh, presque li ñu doon jaay chinois yi ñëw nañu envahir dëkk yooyu def fa ay magasin yu mag yoo xam ne lépp lu ñuy jaay ñoom ni di ko jaay ba pare tamit chinois yooyu noonu tey ñoom daanaka ñoom ñëpp ci chinois yi la ñuy dem bi jënd pour mën a dem jaayaat tubaab yi kon tubaab yi léegi déjà am nañ accès directement euh, tubaab yi am nañ accès directement ci ci ci ci ci chinois yi mën a jënd léegi yow sénégalais bi. tubaab bi léegi yow li mu nar a jënd ci yow mu cher mais day dem directement chinois bi jënd ko ñooñu am nañ jafe-jafe yoo xam ne te euh, déjà ñu ci bëri si ñoom amuñu am nañ carte de séjour mais fay ñu impo fay ñu dara nga xam ne loolu c'est problème boo xam ne problème bu mag la te mag ñu tey jii nii mën ngaa dem léegi xëy suba ba ngoon doo jaay cinq euro 10 euros. Mm-hmm. léegi loo yoreti sa njaboot te yaa ngi tàmmoon. yor fii ñaari soxna wala ñetti soxna. Mhm. di leen yor leen di yónnee xaalis. Mhm. mais tey loolu problème la boo xam ne. Mhm. Eh, defe naa ne préparation retour pour euh, troisième age lañ je pense. à partir de quarante cinq ans jëm kaw. mag ñooñu foog ñu jàppale leen. pour que ñu mën a ñibbisi toog seen wetu njaboot yi. beneen problème bi mooy. Euh, problème bi gars yi wax toujours mooy euh, double nationalité. tam tey jii nga ne nekk Espagne ñu ne la yow. Euh, booy def nationalité espagnole dañ naan la dangay ngay renoncer sa passeport euh, sénégalais. Mhm. Allemagne la même chose. Mhm. France amuñu problème boobu. Mhm. Euh, Italie yi la même am nañ problème boobu. kon yooyu tamit nekk na ay problèmes yoo xam ne je pense que diplomatie bi ñu ngi ci doon avancé mais loolu tamit problème bu mag la boo xam ne war nañ ko régler comme ni ko ay Maroc régler beneen problème bi mooy lu jëm ci wàllu retraite ki nga xam ne mu ngi foofu noonu sénégalais. di liggéey ci ak réewu tubaab bi gis nga ne stress beeg euh, sedd beeg sori sa njaboot euh, wala sax nga nekk fa sa njaboot mais amoo vie. Mm-hmm. amoo vie. Mm-hmm. léegi yow yooyu yëpp noonu nga nekk ci loolu liggéey ci ba traité mm-hmm. mais wax dëgg yàlla war ngaa mën a ñëw nag Sénégal nag. defar sa kër ba mu baax. toog di dem si jàkka ji di ñëw. di def sa petite euh, commerce wala sa petite kii projet. en même temps tamit même def transfert de technologie. Mm-hmm. la nga jàngoon la nga doon liggéey ba retraité nga ñëw jox ko xale sénégalais yi. Mm-hmm. parce que loolu nag tey jii nii. Mm-hmm. ñu ci bëri. ñu nga retraité ba pare kon ne toog foofu. parce que bu ñëwee Sénégal mën nañu am jafe-jafe pour. mën a jot seen retraite loolu tamit je pense que ne IPRES ñu ngi ci doon liggéey ndax gis naa leen jamono yi passé ñu ne signé nañ ak Brésil ñu ngi woon Espagne Italie xam nañ ne depuis Abdoulaye Wade ñu ngi ko doon dox. Mhm. mais yàlla def na ba léegi sotteegul lool. Mhm. mais yooyu tamit yu ñu war a fexe la parce que Sénégal. Mhm. nekk na réew moo xam ne. réew mu am doole la ci àdduna bi. ci côté diplomatie. ak tamit ci côté nité. nité ndax sénégalais yi. bu ñu leen fàtte ne 3 millions de sénégalais ñu ngi ci àll bi te fi ñu nekk yëpp dañ leen faa naw fi ñu nekk yëpp maanaam léegi sax la xaw a euh, da xaw a kii xale yi xale yi li ñuy wax dernière. kii bi mujjee dugg ci gaal yi nga xam gars yi ñoom la ñuy tooñ ne ñoom ñoo yàq dëkk beeg nangam nangam mm. commencé def yoo xam ne bokkuloon ci mbir yi mm. mais Sénégal yi dañu leen a naw dañ leen a fonk ci seen euh, xarañte seen euh, vraiment jàpp seen ñàmbur liggéey nekk seen jàmm mm-hmm. kon loolu euh, yooyu yëpp nekk na ay problème mm-hmm. yeneen problème yi je pense que ne problème la yoo xam ne sa existe Euh, gox bu ne am na problème boppam. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw léegi nag bu ko defee nag léegi li ci des nag mooy association sénégalais yi. Mm-hmm. yi nga xam ne ñoo nekk ci réew yi ñoom tamit vraiment ñu gën a ànd. parce que da ngay dem nii tey jii nii man def naa ko ay yoon yoon dem benn association fii nga xam buñ la waxee da ngay jàpp ne ne la am nañ trois 300 membres nangam nangam euh, ngeen préparé benn jour bu mag pour ñëw toog waxtaan mais boo agsee fukki nit nga fay fekk. nga laaj leen ñu ne ah gars yi kat ñii dañoo xaw a kii ñii dañoo dem fii ñii nangam nangam. Mm-hmm. Eh, mais loolu lépp li ko waral mooy euh, solidarité. Mm-hmm. ak ànd. Mm-hmm. bi war suñu biir. moom moo des. fii ak ànduñu nag. amuñu solidarité jàppante suñu biir tey jii boo demee Madrid lavapiés. lavapiés mooy euh, xolu Madrid mooy euh, fii fi na xam ne fa la fa la. Euh, sénégalais yëpp concentré wu. Mhm. ak business bi. mi mhm. Lavapes la nekk. foofu noonu euh, boo fa demee tey. Mhm. Sénégalais yi kenn njëkku leen fa ñoo fa njëkk. mais tey jii nii. benn but ñaar benn wala ñaari boutique yu Sénégalais nga fay gis. lépp lépp lépp Indiens yi Pakistanais yi Chinois yi ñoo ko yor parce que ñoom dañu am solidarité seen biir. dañu jàppalante seen biir. dem nañ ba nga xam ne ñoom foofu yëpp ñoo ko moom beneen dëkk boo dem tamit c'est la mm-hmm. mais sénégalais bi mm-hmm. maanaam bu amee sax kenn ku yor place mm-hmm. dañ maanaam day mel ne dañ koy sax bëgg mu daanu loolu nag defe naa ne jafe-jafe la boo xam ne jafe-jafe la suñu biir ñun sénégalais de l'extérieur yi ñun les immigrés war nañoo gën a xool nan lañ gën a ànde parce que boo demee ci daayira bi ñu nekk fa benn te buñ génnee kenn ku ne commencé euh, waxal sa morom. ak tamit di kiyal sa morom. Mm-hmm. defe naa ne loolu jafe-jafe la bu mag a mag. Mm-hmm. boo xam ne soppi jikko yi mm-hmm. ànd euh, ñi nga xam ne tamit nekk nañ ay mag war a jëm mag. fexe teel a commencé préparer seen retour. jéem a teel a ñibbisi bañ a ragal. ndax fii moom dañ lay dóor a dóor a dóor bay bëgg a dee mais nag dóor yooyu yëpp noonu ay expérience la. waaw parce que bu la dóoree dóor la dóor la dóor la. léegi nag war a am expérience boo xam ne léegi xool nooy toogee. la mais ñu si bëri nag dañuy ñëg. nee hmm. na man daal di ñibbi daal di toog. Hmm, hmm, loo waxee ñu ne yu man koy vraiment ku yi ma jot nangam nangam mais coup yooyu. Euh, c'est de l'expérience. dëgg la waaw. ñu desandi ci loolu ndaxte immigrants yu bëri nekk bitim réew tey jii nii euh, am na jafe-jafe yu nga xamante ni dañ koy jànkonteel fii ci Sénégal am na jafe-jafe yu nga xamante nii ay immigré yu bëri yu nga xam ne ñi ngi nekk bitim réew dañ koy faral di jànkonteel fii ci Sénégal euh, maanaam euh, ci wàllum euh, li nga doon wax sànq affaire dóor yi ak yooyu mm-hmm. ñi ngay waxal yan jafe maanaam dem na ba ci ñu xamante ni tamit ku leen taxawal fii sax pour ñu mën a toog foofu noonu di yónnee di investir dañuy am boobu jafe-jafe mm-hmm. est-ce que loolu tamit nga xam ni daanaka ñu ñu ci bëri da nga koy faral di dégg est-ce que yow loolu noonu mën nga ko firndeel ci li nga mën nga jot jot nga ko dund wala ñi ngay waxal échange tel hmm. dinañ faral di jàmbat yu mel noonu. non loolu moom je pense que même euh, immigré bu ne dund nga ko euh, dund nga yoo xam ne euh, peut-être xëy na maanaam da nga ñëw ñu teg la loo xam ne da xam ne lii kat vraiment. yaakaaruma ko woon. Mm-hmm. mën na jóge ci sa mbokk. Mm-hmm. mën na jóge ci ci keneen. Mm-hmm. mais Euh, jafe-jafe yooyu dafa nekk loo xam ne lu yaatu. Mm-hmm. am na ñoo xam ne tey jii nii seeni njaboot ci boppam ñoo leen teg jafe am na ñoo xam ne ñoom xëy na dañuy séq ak nit ki mu teg leen loolu mais loolu lépp li ko waral mooy. Mm-hmm. mooy nit ki mm-hmm. euh, bëgg lu yomb. Mm. waaw bëgg lu yomb parce que immigré bi. mu dellu ci kan. bu dellu ci immigré bi. d'accord parce que immigré bi nga xam ne tey. Mm. yow boo nekkee ci réewu tubaab yi. Mm. looy def da dem fay consultance. Mm. ñi defal la ko lépp looy def nga teg ko ci yoon. Mm-hmm. waaye boo ñëwee Sénégal nga dangay da ngay summi mbubbum euh, euh, loyer nga ne woon mbubbum tegu ci yoon mbubbum jub mbubbum yooyu yëpp da koy jël teg ko nale. Mm-hmm. ne noo fii Sénégal moom moom xaalis dafay dox. Mm-hmm. ku ne la nii mën naa la defal nangam bu yëkkati sa xaalis jox ko. te fekk na te yow mënoon nga dem bu dem ministère la nga dem ci ministère bi taxaw laajte def li nga war a def jot sa document yi nga war a jot normalement te doo ci neexle un franc. Mhm. boo dee tabax boo dee ba ñëw xool sa terrain jënd ko ci normal jël sa titre foncier def sa poche dem ji euh, fi nga war a tabaxee yépp étudier lépp xool lépp ba xam ne lii lii la lay dikkee nga taxaw sa liggéey. Mhm. mais tey jii immigré bi day ñëw un mois wala un mois la fi am. wala deux mois. ci un mois boobu noonu bu ñëwee. maanaam daanaka lépp dafa ne na par téléphone la ko war a lijjante wala lépp par xaalis la ko war a lijjantee. loolu tamit bëri na li na xam ne moo ñuy teg ay jafe-jafe ci réew bi parce que ñu si bëri dañ naan non kii dëkku fi. moo ko dóor rek du mujj fenn. après nga daal dellu moom mu ko ne nekk ci lim nekk. kon jàpp naa ne. ñoom tamit war nañuy xool. mais tamit ñi ne fii tamit war nañu yërëm immigré yi. ndax immigré yi sonn nañ. te dërëmu immigré mhm. na muy def ba am ko mhm. kenn du ko may mhm. kenn du ko lebal kenn du ko immigré day liggéey ñaqam ba weer wi dee ñu fay ko nga xam li ñu ko fay symbolique ci lay def ay taaba taabam fay ci foofu ay charge fixe am yónnee si njabootam korkoral dara li muy korkoral bu ko korkoralee un mu doon dara mu indi ko fii ci réew mi kon kooku war nañ koo yërëm euh, beneen bi tamit mooy ñiy jaay boo demoon ci géej gi. Mm. ay été bi. comme ba xam mas ngaa été jéem déet waaye boo demoon ba été ji ba génn. Eh. Ah, nga xam ne boo ñëwee da ngay ñuul kukk. Mm. Ah, ba pare sonn doo nelaw guddi doo nelaw bëccëg dàqanteeg police yi xaalis boobu ngay am boo foo koy dugal war naa nekk fu leer. Mm-hmm. ñi ñi nekk fi tamit. Mm. Mm-hmm. war nañ leen a mm-hmm. jàppale. <coughs> pardon yërëm leen. ba nga xam ne. Euh, macha allah euh, en tout cas daal. Euh, war nañoo soppi doxalin. Mm-hmm. war nañoo soppi xalaatin. Mm-hmm. ci suñu diggante ay immigré yi. d'accord jaajëf xam naa ñu dugal euh, benn euh, élément am benn fem bu nga xamante nii mu ngi vivre moom tamit di dund Italie am na gis-gis tamit ci li nga xam ni moom la ñu nekk di ko waxtaanee nii. xam naa ñu teewlu ko euh, dellusiwaat incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatulah soxna Aminta maa ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay di nuyu équipe bi nga liggéeyal euh, di leen encouragé vraiment si liggéey bi ngeen di def. waaw tey nag Aminta nga am euh, wax dëgg yàlla thème bu am importance mooy comment préparer notre retour wax dëgg yàlla képp kuy immigré rek loolu mooy sa xalaat. naka laay euh, préparer pour dellu sama réew ndax euh, Sénégal la ñu am Sénégal la ñu xam Sénégal la ñu bëgg Sénégal moo ñu ñor amuñu lu lu dul suñu réew képp ku génn sa réew rek ah da nga dem pour jàppale sa njaboot jàppale sa bopp jàppale sa réew ndax tey ku sañoon yaa ngi sa réew toog waa nee ñu jom mooy tukki waaye ful la mooy si waa ñibbi boobu nag daa nuñ koy defee ndax kenn du xëy xëy rek daal di jóg daal di ne maa ndax nu ma ko waxee rek day am ñoo xam ne si yow lañ yaakaar jour boo xëyee gàddu sa saak ñibbi xëy te préparé ko day metti loolu dana metti si ñoom waaye dana metti si yow mi immigré bi ñibbi noonu sans préparer sa retour retour duñ koy préparé il faut nga am sa plan sa benn business lan nga bëgg a doo yor tamit sa xaalis ne maa ngi dem pour liggéey lan laa war a def lii laa bëgg a def am nga sa expérience euh, réew bi nga nekk moom laa bëgg a yóbbu sama réew ah am nga sa business plan agriculture la locaux yi la yaa xam ne mu ti doon mais il faut nga am sa business plan boo xam ne jour boo comme boo demee ne lii la loolu la bu soobee yàlla daan tamit euh, def ay aller retour bala ngaa commencé fa ngay def aller retour di xool terrain bi di xool euh, fu nga bëgg a liggéey euh, naka nga war a def parce que la réalité Afrique muy Occident ak feneen fu muntu doon bokkul donc aller retour yi si baax da nga xam lu bëri bala ngaa commencé nga fixé wu deadline mooy lan nga fixé wu benn date mais man tel date bëgg naa ñibbi définitivement yaa xam un an yaa xam deux ans yaa xam cinq mais fixé sa da la nga organiser wu mu gën a baax incha allah nga am wala am nag lu am importance mooy épargne bi waaw soxna Amina ndax épargne bi tey épargne bi may wax bokkul ak yow xaalis ba nga yopp def sa sa sa business xaalis ba nga yopp liggéey épargne boobu war na toll ak lu mu bon bon un an sax salaire bu mu fi doon am ndax épargne boobu moom mooy ndax tey soo def jëlee xaalis bu nga ñoo yëpp def ko ndeysaan si sa liggéey boobu soo amee ay euh, imprévu mu mun la jàppale te tamit di mun génne yenn dépenses yu sew yi parce que euh, am nañu yaakaaroon si yow donc ñooñu au moins foofu xaalis boobu di di mun a euh, di mun a jëriñ pour loolu lu am importance tamit mooy soo demee di liggéey soo amee li yëpp ma wax ba pare xëy na am na yeneen ak yeneen mais yii daal soo ko defee bala ngaa dem mais lu si am importance mooy nga gëm sa bopp xam ne que da nga ñibbi ñëwoo vacances gëm sa bopp xam ne ko caaxaan indiwu la fa ful ak fayda moo la fi indi yóbbu donc nit ñi suñ la gisee xëy na ñu am ñoo xam ne ñu am yaakaar si si yow dina wax seen doléance mais xamal leen bii pas dama ñëw ñibbisi bokk ko ñenn réew bi ñëw pour liggéey dama bëgg ngeen jàppale ma ndax lu nga yox soo ko naree ah du ma ne bul maye de waaw soo ko naree joxe yëpp da nga am problème donc euh, tamit suñu parents yi jàppale ñu côté boobu donc Aminata loolu moo nekkoon sama contribution vraiment di wax euh, ñun loolu ñëpp ñun ñëpp immigré yëpp loolu mooy suñu rêve yàlla nañ ko yàlla defal ñibbisi ndax suñu Sénégal lañu am ñibbi daal investir suñu réew l'Afrique Sénégal am na potentiel yoo xam ne sax ñun xamuñu ko donc macha allah di rafetlu vraiment si thème bi thème bu am solo la comment préparer son retour euh, pour les immigrés asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu koy jaajëfal bu baax a baax mu nekkoon soxna sama Samake nekk euh, diwaanu Italie moom mu di fa nekk di fa daan dooleem ma nga comme ni nga xamante ni noonu lañ koy faral di waxee rek fépp foo gis euh, góor yaa ngi gis jigéen ca wet ga monsieur Lo euh, gis nga analyse bu am solo bi nga xamante ni moom def na ko daanaka li nga fi jot a wax xaw ngeen a méngoo gis-gis mm-hmm. waaye it ban jàngat nga amaat ci li nga xamante ni mooy wax na ko waaw si c'est ça euh, soxna si ñu ngi rafetlu bu baax kàddu yi mu di wax parce que tamit mooy organisation bi ma doon njëkk a wax rek. Mm-hmm. parce que tey jii nii bu fekkee da ngay organiser sa retour. Mm-hmm. Euh, nga am sa benn fonds war nga xam ci lan nga war a dugg. Mm-hmm. war nga xam li dugg mais. doo ñëw rek ñu ne la def nangam nangam lii dox na Sénégal am dañu lay woon la dégg naa ginaar dox na Sénégal <laughs> léegi ñoom nañ ñëw dem luyee poulailler dugal fa ginaar mm-hmm. dox ñetti fan ñeenti fan mm-hmm. ñoom ñooy njëkk a tàq mm-hmm. bu ko defee xuloo kenn dénk ginaar yi ginaar yi euh, mujj amu jafe-jafe ñu daal di jëlaat seen i bagage ñibbi euh, ñii ne la dañu dégg naa bay mi dox na fi non non man dama defe ne kenn ku ne da war a xool bu baax li ngay dugg lan la étudier ko. Mm-hmm. def sa projet. Mm-hmm. xool terrain bi tamit mm-hmm. xool ñi nga séqal marché boobu. ñëwal sa bopp sur le terrain. mais boo bëggee def lépp rek. Euh, à distance. tamit loolu tamit jafe-jafe la kon organisation. pour le retour lu am solo la. nañ ko organiser. te bañ ko yàkkamti. da ngay jël nga ne ah man trois ans yi kat bëgg naa ñibbi wala quatre ans yi bëgg naa ñibbi Sénégal. nga commencé épargne. am sa benn compte boo xam ne lu am épargne. Mhm. am sa projet. Mhm. xam sa projet temps lay coûter. Mhm. fan ngay defee projet bi boo ñëwee Sénégal. benn temps bi mën nga ko concentrer sa vie privée. mais beneen temps bi danga ko war a concentrer. ci sa retour na nga ko war a taxawale ba nga xam ne. boo ñëwee da nga mën a continuer. di dund ak nit ñi ba pare tamit. Euh, teg sa projet boo xam ne. Mhm. incha allah danga ci mooy nekk sa avenir pour nga mën a continuer yor si sa njaboot. njaboot uh-huh, am na solo euh, li nga xamante ni moo di programme waxuma si programme FEJ bi waxuma programme Proximville man te programme bu nga xamante ni état moom la ko euh, moom la teg nii pour li nga xamante ni mooy immigré yi est-ce que tey jii nii si la la majorité ci ñu ëpp ci immigré immigré yi ñu ngi ciy gis seen bopp bu baax ci programme état. non kooku mën ci gis suñ bopp parce que xam nga koo xam ne yaa ngi dugal mille trois cent milliards at mu ne. Hmm. ñu ne yow tegal nañ la ñetti milliards. Hmm. ci programme. Hmm. at mu ne. imaginel différence bi ñetti milliards yooyu tamit dañ ne la un milliard cinq cent yi mooy li président di dimbalee jigéen ñi nekk ci àll bi. yor ay salon de coiffure nangam nangam. comme ça ñu fekk leen fa. man mm-hmm. leen a financer ay 5000 euros ak nangam nangam. Mm-hmm. pour que ñu bañ a ñu fexe ba euh, ndax demoon nañ ba ba ne études yoo génne yoo xam ne. Mm-hmm. mujj nit ñi fii lañuy toog Sénégal di leen yónnee xaalis man la man am naa cay firnde yu leer. ñoo xam ne dañuy maanaam seen euh, li ñuy dundee léegi Europe. Mm. léegi Sénégal la mujj di jóge au lieu ne ñu ne yónnee. fii au lieu que ñu yónnee ñun fii leen di yónnee. d'accord wala liñ fi dencoon ñi ngi koy jël di ko yóbbuwaat. Ah, ñu ne léegi initiative boobu mu nekk lu ñu rafetlu. 1 mhm. milliard 500 yi 1 milliard 500 yi ci des. Mhm. moo doon des projets yoo xam ne projet quinze million la waroon doon. Mhm. ba quinze million mooy plafond bi. ñu waroon di euh, sélectionner ay projets. mu am benn commission. ñuy financer. mais loolu depuis 2017 ba léegi amul te yi mujjee am tamit. dañuy ñëw nga defar projet boo xam ne 10 million la. Mm-hmm. Euh, ñu financé la 5 millions xanaa loolu moom mooy détournement objectif mooy yow projet bi nga bëgg a def ah jox nañ la xaalis mais xaalis bi gars yi dañ koy jël delluwaat. Mm-hmm. duñ ko duñ ko def ci parce que ku am projet bien déterminé. Mm-hmm. lii ak léegi lii lañ ci war def 9 million la. nga ñëw jox ko 5 million te moom yorul dara topp na ci am ñoo xam dañu ñëw toog fii 3 mois topp ci projet yi. ba pare da ngay jël 500000 francs dem dugal ko apport personnel. Mhm. ci banque yi ñu lay yebal. Mhm. ñu doog lay lebal 4 millions 500. Mhm. na xam ne yow say frais say lii nii daanaka def nga ci lu ma mat 300000. bu génnee amee nga bor yow boo moytul immigré bi nga xam ne ñu mën a yorul fi dara amee nga bor un million. ci ci démarche yeeg jàppal bàyyi. 4 millions yi nga jël ko faj say soxla dem sa yoon. mais moo tax ma ne loolu gis ñu suñu bopp. yi gis seen bopp. ci FAISE muy fonds appui à l'investissement des Sénégalais de mm-hmm. et je pense que ne mm-hmm. euh, euh, le secrétaire euh, d'État mm-hmm. chargé de Sénégalais de bi ñu doog a nommé je pense que ne mi ngi ciy liggéey man gën naa déggante ak moom mais jàpp naa mi ngi war a liggéey ci loolu pour ñu xool lan la ñuy def ba teg benn fonds de la diaspora tegal diaspora bi lu am fulla lu méngoog diaspora bi waaw kuy dugal mille trois cent milliards. Hmm. au boo koy defal ab fonds sax man nga fonds bu ne naa ci def chaque année sax benn cent milliards wala benn cinquante milliards. Hmm. xool mécanisme yi ñuy liggéeyee ba nga xam ne liñ fiy dugal. Hmm. mu nekk luy jur mu war a lépp bañ a dem ci sociale bi. parce que je pense que ne loolu noonu tey jii nii mooy nekk li nga xam ne moom la ñu war a kii. boo demee Mali man dem naa fa Mali Mali suñu xale yëpp ñoo fay nekk di di ñaw. Maliens yi ñoom ñoo leen di jël defar seen ay place teg fa ñu leen di ñëwal. Mhm. am na si nag ñoo xam ne macha allah. Mhm. yàlla def na ba ubbi nañ seen ay place bopp. waaw mhm. ah, mais ñu si bëri noonu la ñuy liggéeyee parce que amuñu doole. mëntuñ toog fii amul lu ñuy def. ñu daw dem Mali moo tax je pense que ne. Euh, immigré yi daal li ma ci xalaat mooy ne. Euh, pour ñu tegal leen ay. Euh, pour seen retour mën a gën a yomb. Mm-hmm. ak accompagnement état bi. Mm-hmm. mooy état bi xoolaat. Mm-hmm. taxawaay bi nga xam ne moom lay war a taxaw ci immigré yi ci kaw. teg ay fonds yu am doole yoo xam ne euh, ba pare tamit mu ànd ak benn politique boo xam ne. acteurs yi ci boo xam ñu dugal leen ci biir. parce que ñu ngi ne danañ déclarer au conseil des sénégalais de l'extérieur. boo xamee bi nga xamee suñu xarit Mor Mor Mor euh, kan euh, moo ko mm-hmm. yoroon mm-hmm. nga xamee liggéey na ci liggéey bu am solo donte am bëri woon na ay ay ay tolof tolof ay tënk-tënk yoo xam ne taxoon na ba mënul woon a mm-hmm. euh, def li mu bëggoon def mais tey jii nii au conseil boobu bu fekkee day ñëwaat dañ ci dugal acteurs yëpp ba pare tamit toog waxtaane mbir mi fexe parce que Sénégal man li ma gëm mooy ci li koy développé immigré yi lay jógee immigré yi. Mhm. parce que transfert de technologie transfert de compétence yi na am. Mhm. ak tamit seen expérience. Mhm. buñ ko indee ak as tuut li ñu yor. wax dëgg yàlla créer ay emploi je pense que ne boobaa euh, Sénégal li mu bëgg dana ko mën a am am na solo euh, kon tey jii nii su fekkante ni yéen immigré yi dafa am loo xamante ni yéen a ngi koy euh, demander état pour mu def ko su boobaa lan lay doon non mooy li ma sànq mooy fonds yi rek mooy moo fonds yi ci la bokk. Mhm. accompagnement état bi ni ñu koy defee. Mhm. ñu toog waxtaanewaat yépp mhm. pencoo ko. fexe ba na xam ne immigré yi. am gëdd. immi euh, guichet unique yi nga xamante ni ñi ngi koy wax. guichet unique yooyu noonu Sénégal l'extérieur yi. gis ñàkk nañ ca gis seen bopp parce que dañu ñëw fii pour régler benn papier. dana ñàkk ay ay fan ay weer. duñ ko regle mhm. yooyu yëpp nag je pense que ne mhm. en global mhm. wàllu migration dañu war a waxtaane waat lépp ndax foo làmb rek day metti foo làmb day metti loo xam ne foo làmb day metti te ji maa ngi lay wax sànq mag ñi nga xam ne ñi ngi tëdd fële Europe am defatuñ fa dara bu sedd bi ñëwee dañu am problème jaayetuñ wala buñ jaayee du jar eh, mënatuñ dem liggéey parce que mënatu amatuñu kattan. pour mhm. dem liggéeyi. Mhm. te mënatuñoo ñëw fii Sénégal toog fii parce que bu ñëwee Sénégal am na lu ñu tàmmal Sénégal ba nga xam ne bu ñëwee. Mhm. ñoom instant bu ne dañu leen di laaj xaalis. léegi nag li ñuy def mooy dem toogi fële ci sedd bi mais loolu metti na. mais loolu war nañ mën a fexe ba ñooñu ay ressources humaines la yoo xam ne. kenn ku ci nekk la nekk sa xam xel tuuti. war ngaa mën a ñëw jàppale ci Sénégal jàppale ci sam réew. dëgg Euh, yooyu noonu. Mm. la ñu war a waxtaanee. Mm. teg fonds bi tamit fonds de garanti wala fon de la diaspora ça dépend ñoom ñu ngi koy tuddee. Mm-hmm. def ci niñ def fii ni parce que fii. Mm. day xool ñu ne fonds wu jigéen ñi defal nañ leen nangam. Mm-hmm. fonds yi defal nañ leen lii. Mm-hmm. donte diaspora bi ñëpp la ëmb jigéen ñeeg góor ñeeg ñëpp. mais nañu xool dayoo bi ñu am. ak tamit li ñuy dugal ci réew mi. Mm-hmm. ak loo xam ne buñ ko defee. Mm-hmm. dana tax ba na xam ne. Mm-hmm. seen ménage yi ñu parce que kenn ku ci nekk lu mu dee dee am nga dix personnes yoo xam ne yaa leen dundal. dix yooyu noonu te jii nii bu fekkee ne accompagner woon nañ leen li ñu leen war a accompagner ba ñibbisi. mais dix yooyu lu mu dee dee dee ñett wala ñeent war nañ ca mën a am liggéey. di fay ay droit di fay impôt. impôts yooyu ñuy fay. di duggaat ci biir réew mi. Mm-hmm. te état bi mën a am lu mu tabaxee ay ay ay ay ay centre santé. Mm-hmm. lu mu tabaxee ay yoon. Mm-hmm. lu mu lu mu lu delloo ci nit ñi. mais fi ak créé wun emploi. fii ak tamit opportunité bi na xam ne moom la ñu war a defal immigré yi pour ñu ñëw investir créer emploi. amul jafe-jafe yi day gën a bëri. Mm-hmm. jërëjëf am na solo ak jàngoroy coronavirus bi nga xamante ni def naa fépp daanaka ci àdduna bi eh, tey jii nii immigré yu bëri tey dem nañ nekk bitim réew feebar ba foofu la leen fekk am nañ ñu nga xamante ni aussi ñi ngi fii ci senegal ñëwoon waroon a ñibbisi tamit euh, feebar bi fekk la fii fekk leen fii hmm. euh, lan nga jàpp ni tey jii ni euh, jafe-jafe yooyu maanaam coronavirus bi impact bu mu war a def sur le plan économique ci ñi nga xamante ni ñoo féete ci diaspora bi waaw coronavirus bi ni ko suñu wasila waxee rek Sëriñ Muntaxa mm-hmm. di suñu borom mu yàggal ko fi lool te wéral ko Mbàkke borom Tuubaa mhm. eh, ni mu ko waxee rek ne jaamu bi yàlla la rek boo xam ne daa ñëw mm. eh, fekk say jaam yàlla mhm. corona boo xoolee ni mu duggee mm. eh, lu garaaw la man bi man bi muy corona bi muy démarré mi mm. mu fekkoon ma dem Brésil ñëw ñëw Dubaï mhm. ma gis nit ñi ni ñu doon Dubaï xam nga dafay bouger aéroport Dubaï bi ma ne mais lii kenn mën cee mucc. Mhm. parce que lii nii tey boo xoolee tey nit ñaa ngi nit ñaa ngi euh, kii fu nekk euh, matuwaay yi na xam jël nañ ko nii après matuwaay yooyu ba yooyu yëpp jëlaguñ ko woon mais quand tey boo xoolee euh, immigré yi am nañ ci am nañ ci ay jafe-jafe yu bëree bëree bëree bëri waaw parce boo xoolee. tey nga dem euh, ñoom ñëpp seen liggéey dafa paralysé woon mm-hmm. ñi ci nekk ci dëkk yu am doole yi mooy dëkk européen yi mm-hmm. ñooñu sax doon nañ am lu ñuy jot par weer mm-hmm. mais imagineel ñi nekk ci yeneen dëkk yi ah euh, na xam yow boo nekkee immigré ci fenn da war a fay location da nga war a def say charge fixe ba pare tamit da nga war a tamit en même temps euh, tamit ni ñu ko ci waxeeti ciy jégalu dafa mel ni auditeur boobu dem na. waaw mhm. te tamit da nga war a tamit yónnee sa njaboot. Mhm. tey jii nit ñu nekkul ci réewu Europe yi nga xamee mën nañ seen bopp. Mhm. ba nga xamee. nit ñaa dañ leen confiné woon ba pare di leen jox dara. ñooñ ñëpp imaginer ay weer yu toog liggéeyul. war a fay location. war a lekk war a naan tax ngeen xam ne. immigré yi man maa ngi la koy wax sànq. ñu si bëri organiser wuñ jour jour la dund. ça veut ñoom am nañ tey nii dara. waaw weekend bi ñu jël li ñu yor yónnee fi ñu war a yónnee dundaat yàlla. kon ñooñu affaire bi bu leen bettee kon metti woon na bu baax a baax a baax a baax ci immigré yi. Mhm. dëkk yi commencé ubbi yëpp nag euh, dana tax nit ñi xaw a xaw a xaw xaw kii. Mhm. à loolu mooy tamit gouvernement bi def na ci lu am solo. Mhm. mooy euh, fonds bi ñu jagleel euh, immigré yi. donte ñëpp parce que tamit 3 millions immigré lañ am ci àll bi. mais fonds yooyu indi na ay coow de. non coow moom lu yëngu am coow. Mm-hmm. coow mënul ñàkk. Mm-hmm. et puis surtout nag lu jëm ci diaspora bi diaspora bi moom. Mm-hmm. coow moom du fa du fa jug. mais quand même au moins am na ñu mu touché. te ñoom touché. ñun jàpp nañ ne ñooñu. yelloo nañ ko soxla nañ ko. ñëpp mënuñoo am. parce que 3 millions immigrés. lu mat ay cent et quelques mille inscrits. Euh, ci ci ci ak li ñu leen jagleeloon. Euh, te tamit ñoom dañ ko soxla ñi ne ci biir réew mi soxla ko. Mhm. ah kon je pense que ne. Mhm. ña ca jot am mën a am am nañ. Mhm. ñi mënta am tamit euh, yàlla dool leen xewal mais en tout cas daal ñu gën a euh, lii tamit war naa gën wan. gaa yi ñu gën a xalaat. pour ñibbisi. ñu gën a xalaat. pour préparer seen retour. ñu gën xalaat préparer seen projet de retour. parce que retour. ak projet de retour du benn. waaw loolu daal soxna Aminata mm-hmm. moom xam nañ ne mm-hmm. eh, coronavirus bi mm-hmm. eh, yàlla nag fii suñu borom nag jële mel na il faut tamit mm, fii ci biir réew mi ñuy respecter eh, les barrières di respecter di takk masque di raxasu di dandante mais gis nga tey Sénégal dafa mel ne dañoo fàtte affaire bi dëgg la romb nit ñi dañ leen ne ñëpp takk masque commencement bi sax policiers yi doon na def boo takkul masque suñu jàpp la mais mais tey jii nii da ngay xool kaay yi dañu mel ne léegi takk masque bi dañ ko bàyyi. Mm-hmm. te tey jii boo xoolee tey rek tey cas yi ni mu gën a yokk. Mm-hmm. li tas yi ñu def moo gën a moins. Mm-hmm. te cas yi moo gën a yokk. kon loolu war nañoo wan ne affaire bi mi ngi fi. nañu gën a góor góorgóorluwaat. gën a protéger waat. wala jëndee masque tissu yi. boo amee ñaar wala ñett mais bu kiyee nga fóot. Ah, mhm. boo fóotee boo koy mhm. takkaat beneen mhm. waaw je pense que ni daal euh, coronavirus bi daal loolu lañ ci wax di ñaan suñu boroom euh, jële ko fii ak jàmm ak salaam ba euh, activité yi dellu siwaat plan de relance économique bi état bi teg tamit Euh, Sénégal yëpp gis seen bopp. Mhm. que mu fonctionnel incha allah. Mhm. ouverture frontière yi ñu ko war a tijji ci la quinze bi nga xam ne ci la ñu ko jot a jàpp ak euh, wax nga ni coronavirus bi gis nga ni moom ba tey jii nii euh, cas yi ñu ngi gën a yokku est-ce que dal na xel ñu ubbiwaat frontière yi. oui dal na xel parce que boo xoolee France premier ministre bi ñu nommé nii dafa xool français yi ci bët ak bët. Mm. keroog mm. ne am na beneen vague de contamination boo xam mi ngi war a ñëwaat France. Mm. mais bu ñëwaatee xalaatul sax suñ ñetti xel xalaatul ñuy confiné waat nit ñi kon ndax France économiquement amatul doole boobu noonu pour mën a confiné waat nit ñi parce que xam na ñaat la leen coûté woon. Mhm. kon nañu fexe ba respecter les mesures bay les bay kii. mesures barrières waaw. Mhm. parce que buñ ko respecté wul. Mhm. nañ buñ ko respecté. y aura des dana am ay cas mhm. mais cas yi ñu traité leen mhm. et puis que la vie continue parce que tey jii nii bu ñu ubbiwul frontières yi mhm. Sénégal ku fi ñëw touristes yi fi doon ñëw fan la ñuy jaar ñun ñi nga xam ne dañoo war a génn di dem ak ñëw fu ñuy demee il faut que ñu ubbiwaat lépp delluwaat à la normale ñëpp di dox seeni soxla waaye nag ñu respecter les mesures bu ko ba keroog nag vaccin bi nga xam ne ñu ngi koy xalaat bu génnee ba nga xam ne ñi ko am ñëpp yàlla mën na def rapidement ñu régler problème boobu euh, ndax loo gis rek suñu borom wàcce ko mm-hmm. euh, am na saafara mm-hmm. incha allah ñu jël auditeur bi allo salaamaaleykum allo allo salaamaaleykum soxna si ñu ngi lay nuyu dina la ziyaara di la dalal fii ci Afia FM Dakar tur bi ak fooy ootee. ñu ngi jéggalu bu baax a baax mhm. xam naa monsieur am na benn élément boo xam te mu nga jógee Allemagne euh, ku ci yëkkati woon kàddoom moom it waxoon moom it gis-gisam ci li nga xamante ni moom la ñuy waxtaanee ñu teewlandoo ko. am Aminata Diop waaw euh, di la gërëm di la sant rek ci wóolute gii nga am ci man affaire immigration ma dafa nekk thème bu complexe ndaxte xam nga Sénégal euh, économie bi su fekkee ni daanuwul complètement ou bien yenn misère yi yenn ndóol yi amul suñu réew immigration def ci jouer rôle bu rëy rëy rëy parce que ñu ne immigré yi li ñuy yónnee par an Sénégal ëpp na budget wu budget de fonctionnement wu gouvernement wu Sénégal xam nga loolu moom dafa nekk lu rëy ay milliards et milliards la am na ñuy wax sax na nekk ay trois milliards par jour waxuma par an ou bien par euh, mois mbaa par semaine mais par jour donc xam nga loolu xaalis bu bëri la loolu day tax itam suñu économie consommation bi parce que économie moom mu ngi euh, basé wu rek ci consommation le plus souvent daal parce que sans consommation économie du dox donc loolu dina tax xaalis yi nga xam ne ñu ngi koy yónnee suñuy mbokk yi suñuy waajur yeex euh, àndandoo yi loolu day tax ñu consommer commerce bi di dox affaire bi gën a marché waaye li nga loolu itam dafa am solo xam nga mooy li chinois soo ko mayee te tey jën a ah, bés boobu de moom dëgg-dëgg du du xiif de moom dina lekk jënam ba suur waaye soo ko jàngalee ni muy nappee alors dootu la soxlaati dootu soxlaati ndimbal na la gërëm gaa waaye na la wax rek jërëjëf léegi moom am naa samay laaf mun naa naaw donc di nappal boppam di lekk di ci jaayaale itam di toppatoo doomam euh, doomam yi di toppatoo itam këram njaboot yëpp kenn bañ ci xiif bañ ci mar bañ ci liw donc daal euh, man yaakaar naa ni philosophie boobu la euh, immigré yi war a jël lu tax xam nga dafa am ay lobby ci yeneen réew yi su ma jëlee exemple rek su ma jëlee lobby bi gën a am doole ci àddina mooy lobby juif bi nga xam ne muy fële États-Unis te dañuy influencer ci politique gu États-Unis itam ba tey Israël ñeme def li nga xam ne mu ngi koy def ci réewu arab yi euh, contre les Palestiniens donc pour euh, pourquoi ñun duñu orienté wu ci lu mel noonu structuré wu baax a baax dañu am xam-xam ci structuration ci dafa former ay nit ay association ay coopérative ah du ñu fi jeex te Afrique dafa nekk continent boo xam ne bi dafa laaj investissement mais xaalis bii nga xam ni ñu ngi koy am fii ci bitim réew du ñu jéem a seet rek ñuy créer benn banque boo xam ne day permettre ñuy investir ci biir réew mi ba pare di dimbale képp koo xam ne am nga idée bu dëgër a dëgër garantie yu dëgër a dëgër comme ni ko benn indu defee woon euh, moom euh, jigéen ñi surtout la doon dimbale euh, dafa am benn banque bu mu créer banque boobu day joxe ay crédit crédit yi nag amul ay intérêt yooyu fay peut-être rek rek juste les frais d'administration mais intérêt ci boppam yaakaar naa ni dootu lool du ci am de telle sorte que jigéen ñi dañuy investir ci ay commerce yu ndaw ou bien ak yeneen euh, idée euh, ay yeneen entrepreneuriat alors di fay ndànk-ndànk banque bi nde ni koy delloo noonu la ñuy kon mën a itam euh, dimbale yeneen nit loolu Youssou Ndour jéem na ko sax ak wiiri wiiri defe naa mais réussirul waaw donc man yaakaar naa ne am nañ fi ay compétences yoo xam ne yi mun nañu jox ay idées yu dëgër ba pare surtout contrôler xaalis bi ci boppam mu bañ a nekk xaalis bu yàqu alors di dimbale ay nit akom bu leen dimbale rek ci amu xaalis ci boppam mais itam euh, aide technique waaw su fekkee ci agriculture la ah na am benn structure boo xam ni ay agronome ñoo fa ne alors ah, di encadrer ñi nga xam ni ci euh, agriculture lañ bëgg investir defal leen benn marché parce que damay wax toujours marché africain dafa rëy pratiquement ci gën a rëy ci àddina la bokk mais lépp lu ñu consommer mu jóge bitim réew alors jéem a orienté wu ci marché intérieur bi de telle sort que ñun dinañ mun a satisfaire demande ñi nga xam ni ñooy détaillants yi donc man yaakaar naa ni orientation boobu su amoon dina nekk lu baax a baax a a baax loolu nag dafa jara waxtaan concertation la laaj organisation bu dëgër a dëgër def benn structure bu dëgër def benn lobby boo xam ne réew mi lay jëriñ daal man yaakaar naa ni loolu euh, mun na doon rôlu immigré yi parce que immigration dafa am doole ñii jógee suñuy réew nekk ci àdduna fépp foo dem ci àdduna yi sénégalais ngi foofu alors nan la ñuy def rek pour boole leen ci benn xalaat ko ci benn vague boo xam ne moom njëriñu réew mi lay doon waaw te loolu itam euh, balaa may may jeexal daal dinaa xamal ni immigration tey amatul euh, vraiment benn apport bu rëy coono rek lay doon ndaxte corona gën noo ko yokk euh, crise économique bi day gën a rëy ci àddina bon euh, condition de séjour ci boppam condition yi nga xam ni nit war na ko boolee pour mun a toog fii ci réewu Europe yi par exemple ah, day gën a jafe rek day gën a jafe bon boo yi nag ndeysaan ñu ngi def lu ñu mën am na ñoo xam ne dañuy risque dëgg seen dund seen bakket pour mun a ñëw Europe gi mais ñu bëri dañ fii ñëw ba pare rëcc ko naan lii de man su ma xamoon xaalis bi ma ci yàq yëpp naa ko jéem a naa ci jéem a def dara Sénégal donc immigration daal dootul solution nañu jéem a benn marché intérieur boo xam ni dina tax effectivement euh, africains yi mën a produire li ñuy consommer euh, ba pare di ko jënd seen bopp alors économie bi di gën a rouler daal mango koor ñu di ko jaajëfal bu baax a baax moom grande Amadine ba nekk ci diwaanu Allemagne euh, monsieur Lo dégg nga li nga xamante ni moom la wax waaye fenn foo xam ne bëggoon naa faa ñëw sax moom laal na ko muy banque bi nga xamante ni wax na ko immigré yu bëri dañ koy wax tey ni suñu sañoon tey jii nii état bi defal leen benn banque bu nga xamante ni euh, lépp lu nga xamante ni fi la ñuy yónnee seen xaalis mu jaare foofu koom-koom bi di delluwaat ci seen i njaboot nga xam ne ñu ngi Euh, ñoom tamit doom réew mi la ñuy doon dërëm bi bañ a génn gaal gi loolu aussi yow hmm. tamit euh, ban jàngat nga ciy def. ma mooy li ma doon wax sànq rek. Hmm. fonds de de la diaspora. Hmm. Euh, sénégalaise fonds boobu dafa nekk fonds boo xam ne ñëpp xam nañ ne lu am solo la. te lu mën a yombal retour immigré yi la. lu mën a yombal seen investissement lay doon. ba pare tamit euh, dana mën a tax tamit li ñuy yónnee ci xaalis. Mhm. di mën a def directement. Mhm. kii léegi nag euh, li mu wax lu gën a am solo. Mhm. mooy tamit ci côté euh, ma local sa production locale. xam production locale ñun fi mu toll lépp daanaka lu ci ëpp ci lu ñuy jëfandikoo dañ koy jéggaani. bu doolelee production locale bi. Euh, immigré yi ñëw investir si. Mm-hmm. mais loolu dafay nekk loo xam ne lu am solo lay doon ci Sénégal. Mm-hmm. ndax boobaa kenn ku nekk mën nga jël ay emploi yu bëri. Mm-hmm. créer ah, créer ay ay ay investissement yoo xam ne tamit ak technologie ak ak euh, xam-xam yi nga jànge fi nga ne woon. indi ko parce que li mu wax daal fële moom nekkatul solution. solution bi léegi mooy Sénégal. italien yi man dem naa Brésil fu ñuy wax euh, Casillas. Mhm. maa ngi leen nuyu bu baax comité sénégalais bu rëy moo fa ne. Mhm. xam naa foog nga def sa imi sa kii yi nii. Mhm. da waroon di dem foofu di leen fekki. incha allah <laughs> parce que Casillas bu ñëwee. Euh, maire bi ab italien la. descendant italien la. mu ne man sama maam italien la dëkk ba. Euh, même yóbbu nañ ba ci benn usine sax boo xam ne. Mhm. Cheikh Amar mi mhm. euh, kii tracteur am yooyu yëpp yi muy jënd foofu la koy jënde mhm. euh, mu nekk dëkk boo xam ne namuñu dara ci Europe. dara dara ñoom maanaam. yow mi dem Europe. yow dangay xam ne ñii ñoo raw sax européens yi muy Casillas. mi ngi nekk ci wetu Porto Alegre. nga gis ne ñoom italien yi bi ñu ñëwee foofu. fan lañ ñëwoon immigré si. mais bi ñu immigré ba pare mm. dañoo dellu. Mm. ñooñu ñooñu immigré ñi immigré si woon foofu. Mm. ay cassias ak Argentine. Mm-hmm. ñoo delluwaat dem Italie defar Italie. Mm-hmm. defal leen tey jii nii li ñu waxee les PME PMI. Mm-hmm. jàppale leen accompagner leen. ña fa jotoon a toog tamit toog fa continuer tey jii nii ña nga fa. mais je pense daal li ñu war def mooy. nañu jàppale immigré yi. jàppale leen ci ay fonds de garantie wala fonds diaspora lu mën a doon. Mhm. waxtaanee waat mbir mi. Mhm. jàppale mag ñi ñibbisi. Mhm. jàppale eh, tamit eh, gars yi ba nga xam ne seen investissement mën a yomb. d'accord am na solo xam naa li ñu jarale woon ci waxtu li ci des daanaka bareetul eh, soo doon tàggatoo tey jii nii. sa kaddu gu mujj su boobaa lan lay doon monsieur waaw di la sant bu baax ci invitation bi vraiment macha allah. Euh, lii moom euh, lu baax la. Mm-hmm. ñu noom dañoo nekk produits immigré. Mm-hmm. Euh, xeexal immigré yi fu ne daw ci immigré bu ne. Mm-hmm. am ci tamit benn petit pàcc expérience bu ñu suñu borom defal. di wax ne rek kontaan nañ ci bu baax. di ñaaxaat sama mbokki immigré yi. ñu gën a rek jàpp bañ bàyyi. gën a tamit fexe ba. Euh, préparer seen retour. Mm-hmm. préparer ko tamit ci ay projets yoo xam ne day nekk ay projets yu am solo. Mm-hmm. bu ko defee yàlla mm-hmm. defal ñu xéewal ñu ñibbisi. créer emploi. jigéen ñi am ay borom kër. parce que gars yi ñu ngi takk foofu ah. <laughs> ah bu ko defee. ñëw takk ci soxna yi. ba investir. Mm. jël xale yi ñu liggéey. Mm-hmm. Sénégal jëm ci kanam. jërëjëf ñu ngi lay sant di la bu baax a baax ci oyof bi disponibilité bi disponibilité bi vraiment wuy si ñu fii nii ci Afia FM Dakar am nañ ci mbégte bu yaatu yaatu ñu ngi lay ñaan yàlla suñu borom mu daal di lay gën a dëgëral kàttanal la ba projet yi nga xamante ni yaa ngi koy naal yéene ko askanu Sénégal yàlla suñu borom eggaleel la ko lu kawe sa njortu ak mboolem ñëpp ñi nga xamante ni ànd nga ko ak ñoom. niki noonu la ñuy jaajëfalee ñëpp ñi nga xamante ni jàpp nañ ci émission émission bi ku ku mel ni grand Bassirou Thiam ca bu am solo naka noonu ma sœur Fatou Samak moom it nekk ca Italie di jigéen di daan dooleet ngi di ci gis-gis bu am solo naka noonu lay jaajëfale grand Amadine Ba ci diwaanu Espagne moom tamit indi na ci contribution am solo naka noonu lay jaajëfale sama rakk ji di Bachir Cissé nga xam ni moo jàpp ci technique bi ba mu mën a yemb di jaajëfal équipe bu Afia FM Dakar di ñaanal borom kër gi soxna Penda Ngam encore une fois yàlla suñu borom yàlla ko woyefal ko yen bi ba li mu yenu lépp mu mu mën ko euh, attan ba afiya mujjee nekk télé incha allah di jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ni boobaak tey ñu ngi ñu doon déglu ñi nga ni ñu ngi jëloon seen téléphone bëggoon a dugg ci émission bi tey jotul yemb ñu ngi leen di jéggalu bu baax a baax di jéggalu képp ko nga xamante ni dégg nga loo xamante ni xëy na euh, jaarul yoon euh, mata di doomu aadama moo tollu noonu waaye képp ku nga xamante ni tamit gis nga ci sa bopp bànneexu ci na nga ko ñaanal moom monsieur Lo te xam ni lépp ndimbalu suñu borom la eh, fi ma toog nag eh, sama sœur eh, Oumou Khayri borom émission li ci dëkk bi am solo moom ma nar a kon nag ñu ngi leen di bàyyi ak programme Afia FM Dakar di leen jox rendez-vous rek incha allah beneen samedi beneen numéro beneen invité ñu nar ko waxtaanee waat ci leneen i mbir incha allah jaageen jëf mu nekkoon seen sœur Aminata Diop.